yow tamit yàlla na la yàlla may wér ak tawfiix merci merci. wóor na ku ma tontul comprendre message dañoo bëri tellement wóor na yàlla mun ma sax tontu. sëriñ Saali ay yow tamit ay yow tamit amiin si barki Seydina si barki sëñ Saaliw ci barki sëñ Touba. ok yàlla mën na ko. waa maa ngi abonné t'inquiète pas ok. Assane abonné naa c'est fait. ah yow tamit <laughs> merci merci maa ngi tane macha allah maa ngi tane bu baax alxamdu c'est joli merci merci. <laughs> waaye Fane Mbaye xanaa kii nii ok d'accord bëgg na ma trop ki dañoo bëggante sama rakk la mooy sama xarit mooy sama xarit njur bu nekk day am ñu xaritoo mooy sama xarit. merci amin amin si barki sëñ Touba yàlla mën na ko waa franchement tu es magnifique macha allah merci ayo man maa gën a kontaan si toujours man mii man maa gën a kontaan loo bëgg benn bëgg naa ko fokk topp mhm, xaadim saw ça va yaa ngi si jàmm ok le 10 sa anniversaire la ok <laughs> incha allah xanaa dinaa ko def dinaa ko def waaw dinaa ko def de wóor wóoru aada mooy nee dama fi nekk di célébrer anniversaire yi ko def waaye dama la koy defaral aha <laughs> merci merci merci yow tamit na la jàmm sonal ah ok thank you ok ok d'accord kooku Tafa nam naa la si loo ne yaa ngi am jàmm macha allah dama bel merci Badara Dieye Badara Dieye Badara Dieye sama papa. Badara naa la lu wér a wér a dama mi merci Fatou Chandoy yow yaa ma dàkk yow yaa ma dàkk. dafa sey waaw kay kër si toi yow da baax bëgg ma. da maa bëgg de. Mhm. amin amin yàlla dina ma may weer. soobu suñu borom. lu may def pousse leen tuuti amin amin la yàlla may def bokkam yow amin merci merci yow yaa ma gën a merci merci yow tamit yow yaa ma gën a beau ah merci ça va bien uh-huh. ma wér waay bu soob si ñaanal nag ñaanal macha allah dangaa bel yooyu yow mii nii Marème. Marème Ndiaye yow mii yaa ma dàkk. waaw maa ngi tane macha allah man maa ngi tane. Mhm. alhamdulilah. damaa sonn nag maa ngi def live mi damaa sonn ah damaa xaw feebar. gis sama kanam sax xam ne tey belliwu ma ça va def yaa ngi si jàmm man maa ngi Dakar maa ngi Dakar waaw kay. amiin yàlla naa wér ak jàmm yow tamit nga am taw feex ak tay seet hmm, yàlla mën na ko maa ngi tane maa ngi sant yàlla ça va noo def si jàmm. oui maa si jàmm. yaa ngi am jàmm bu baax. oui maa ngi am jàmm bu baax. d'accord kooku noonu daf maa. ah. kooku kon daf maa xam. wala na Aram la waaw. Aram va comment tu vas. yaa ngi am jàmm. macha allah. ah. allo Aram ça va amin amin waaye amin yàlla mën na amin yàlla baax na waaw ngi am jàmm macha allah maa ngi am jàmm na jàmm yàgg amin amin amin amin ñaani ñaani moom bëgg naa ko moom ñaani moom bëgg naa ko man lii laa yàlla ma wér wallaay yàlla mën na ko lu leer yàlla yàlla yàlla yàlla faj ngay doxi say soxla. te yàlla mën na ko te dana ko def. amiin sëñ bi kontaan naa de Seydina Mohamed. yàlla tege nattu te da koy teggi bu soobu si borom. waaw amiin yàlla moom mooy tege nattu te da koy teggi sax. <laughs> dama leer rek ci ma dëkkee juste. <laughs> ok lu leer. waaw noonu la jërëjëf jërëjëf. waaw ah, waaw amal jàmm waaw. waaw ah, waaw waaw waaw. kay man lii laa bëgg ku may ñaanal waa ma wér ci barke Seydina Mohamed yàlla mën na ko yow tamit yàlla na la yàlla defal tawféex merci beaucoup merci beaucoup. Mhm. amiin yàlla baax na wallaay yàlla baax na mos mooy tege nag mooy teg amiin amiin waay yow tamit je t'aime mhm. na yàlla motali lépp bu soob suñ borom. danga maa bëgg a seet si ah waa d'accord danga may seet si soob suñ borom man maa la xaw mhm, man maa la xaw yaay yaay asi mu ngi oh, tamit ndeysaan yow tamit macha allah danga baax yow tamit borom baax nga ah tamit trop même yàlla xam na ko <laughs> def naa laay damaa sonn je te jure carrément instant eh, bi moom kite rek laa bëgg kite kite dem noppalu sàmm rek ñu ma koy demal noppalu juste dañoo am yéemaande si man man tamit damaa sonn je te jure damaa sonn jamais sama <laughs> waa gis nga tane tane de laa bëgg yow tamit waaye yéen tamit nekk leen si jàmm ah. <laughs> waaye fu ma dëkk dañ fay bëgg ñëw waa d'accord dinaa la wax ma nekk bien sûr dinaa la léegi léegi léegi léegi incha dafay encay waaye Pape Thiam quitte ma live s'il te plaît